pikiir yi sëriñ yi nga xam ne nii ñoom ñoo doon wax feebar bi mi ngi fi. bu kenn gàmm bu kenn màggal bu kenn def leneen ak leneen ñu tere woon ñu manifestation yu metti sëriñ yi nañ pikiiru ak gore leen rek ngeen pikiiru <laughs> est-ce que comprendre ñi doon conscientiser nit ñi ñëpp nañ pikiiru ngir yàlla ak yonent bi yéen ñi nga xam ne yéen la ñu joxoon xaalis bi waykat yi. dimbali ñu ngeen pikiiru waykat yi pikiiru leen ndax lekk ngeen ci xaalis bi. ak artistes yi ak comédiens yi pikiiru leen li ñëpp pikiiru man yàlla. mbëri la mbëri lekk ñu. mbëri lekk ñu yow milliards yi ñoo ñu jox nii pikiir yi ñoo ñu jox mbëri maa ngi xaar ba kenn ma pikiiru maa ngi xaar ba nit ni mu barki Serigne Bamba ko taxaw ne a ah, yéen ñi lekk milliardu dëkk bi pikiiru leen. pi mais pigiru ngeen. non pigir pigir dañ koy def. ah comme yéen a. lekkuñu de lekkuñu non non bu ma ni yéen mbëri lekkuñu. yéen borom doole ci dëkk war a lépp lu fi am ci réew mi. kon ba xaalis bi ñëwee ñun la ñu waroon a jiital jox ñu lépp. am ngeen 30 millions pour pro xam nga 30 promoteurs yi la kon promoteurs yi pigiru leen. waaw ak lu lamb la rek. déet déet déet déet ond euh, ond la fu ba pare pikiir yi sax waaw barki sëñ baam ba bu fekkee day rey góor jigéen yi nekk ci dëkk bi lañ ko waroon a pikiir ñu dee ndax dëkk bi daa bari ay góor jigéen barki alxuraanu karim dañuy xeesal rocci seen tuñ dërëj daa tent seen bopp bi xaw ko dërëj te xeesal bu maasewul la ñuy xeesal c'est que Sénégal lañ fi war a wax te waxuñu ko moom bari ond yow xam nga dañ la war a jël yóbbu la nga tem taxaw ci ci gars yi di expliquer li xew ci réew mi waaye déggoo li ma la wax Sénégal man Sénégal bu doon groupe WhatsApp Sénégal bu nekkoon groupe WhatsApp da ngay jékki-jékki rek gis Onde Le Fou quitté quitté naa yàgg naa quitté man sama jarbaat yi ma fi am ak sama turandoo man moo ub sama bopp fi mu toll nii